salaamaaleykum cher internet Sénégal seeti ñu safoo di ñu seetaan ak fépp waaye mën a nekk ci àdduna bi ku ci nekk fekk nañ la fa nga toog di la jaajëfal bu baax a baax di la jox sa wàccuwaay di ñaan yàlla suñu borom def jàmm ci àdduna bi yëpp ci barke Seydina Muhammad rawatina fii ci Sénégal ñëwaat rek ci seen émission Jël Jëli ñu ciy ànd ak daba mu baax macha allah daba jargandal ñu koy amal chaque mardi ak samdi fii ci Sénégal set damay daal di bàyyi daba rek mu nuyoo. ak rosam bu baax boo moo la laal tey. <laughs> waaw asalaamaaleykum mbokk internet maa ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax rawatina waa Sénégal set gépp ak téléspectateurs yi nga xamante ne ñoo jàkkaarloog ñun duñu seetaan biir réew ak bitim réew maa ngi nuyu ñi nga xamante ni ñoo ngi ci prison yi. di leen ñaanal yàlla nañ fa génn ak jàmm ak salaam te yàlla buñ fa duggati di ñaanal kilifa diine yi ak kilifa aada yi di dem ba hôpital di seet malade yi yàlla yàlla fëgg seen bopp yàlla nañ génn foofu nga xamante ni fa lañ tëdd ci barke yonent bi yàlla suy leen garabu weer ci kattanu yàlla ak mbaaxam di ñaanal ñi nga xamante ni nii ñooy way la yi yàlla leen yàlla yërëm àtte leen ci yërmandeem di nuyu nag euh, waa Touba ma jokk di ñaanal sëñ Muntaxa Mbàkke mu yàgg fi lool Mbàkke balaate ànd ak wér ak euh, kilifa diine yëpp ak kilifa aado yëpp waaye nag may nuyu sama rek sama xarit bàjjen national bi nga xamante ni nii macha allah ma nag moom dañuy jàkkaarloo di pelloo ah, bëggante loolu muy sama rakk di sama xarit bàjjen nuyu naa la lu baree baree bari. <laughs> dama sa bonbon baax na <laughs> gis naa sa noir. <laughs> macha allah. sama rakk ji macha allah da da loo def mu neex àdduna. na solo waaw waaw lan ci réew mi. en tout cas baax na lool macha allah. tey nag grande sœur li ma bëggoon ñu waxtaanee ko mooy. Mhm. jëj ji nga xam ne dañoo nekk ci kër yi. Mhm. nekk ay jàmbaar doon ay sëykat te amuñu fa doom. Mhm. bàjjen la ñuy xam donc euh, waaw euh, dugg nga ci thème bu am solo mhm. mooy jéeg ji nga xamante ni nii ñu ngi ci biir néegu sëy yi di sëy te yàlla mayu leen fa takk ndeer mhm. maanaam yàlla mayu leen fa tuut tànk muy doom ndax euh, yàlla bi muy boolee ki nga xamante ni nii mooy jëkkër ak jabar di leen boole ñoom ñaar loolu jiitu na ci seen judd nee nañ sëy suñu borom a ngi koy takkee ca aras muy lu doy waar loo xamante ni nii yàlla dogal na ko sëyit buñ koy takk ci farata yàlla ak sunna Muhammad waxaale wuñ ci doom mm-hmm. doom kado la ci biir sëy doom nekkul loo xamante ni da nga koy signé sa borom kër mm-hmm. nekkul loo xamante ni nii da ngeen di toog te jàkka ja mm-hmm. wala ngeen waxtaane ko avant bi di am doom yàlla moo koy dogal ci biir sëy doom kadoo la ci biir sëy waaye léegi euh, am na ñi nga xamante ni nii ñi ngi nekk ci biir néegu sëy yi di sëy sëy fa lu mat fukki at wala ñaar fukki at wala lu ko topp mhm. yàlla dogal amuñu doom mhm. mu doon lu metti loo xamante ni nit ñi ngi koy dund sa goro di la ko xase mhm. wala sa njëkke di la ko xase wala sa jëkkër ji nga xamante ni sax moom ngay sëyal mu ne naa takk ji ñaareel pour am doom ndax sama aawo bii mënta am doom am na ñu ci bëri ñoo xamante ni ñi ngi am wujju bàjjen mhm. loolu moo leen ciy dugal mhm. ñu ci bëri ñi nga xamante ni ñi ngi takki soxna it loolu moo leen ciy dugal sëy naa kii naa nga ni kat aw maak moom doom damay takkaat keneen mhm. mën ngaa takkaat keneen kooku ñëw yàlla neewul waaw ba tey te bu yàlla neewul waaw nga bëgg ni waaw day metti ndax yàlla mooy dogal sànq da nga sëy doom nekkul force la ci. Mhm. su ci amee rek kado la. Mhm. waaye est-ce que daba ñëpp xame nañ ko noonu. dëgg la mooy li ma la wax ne la am na ñoo xamante ni nii doom jaral na leen lu ne te xamuñ ni doom yàlla moo koy maye. Mhm. bàjjen nit a ngi am doom yu dul jeex te mënalu leen dara mënu leen a dundal. mënu leen sàng. mënu leen a wodd mënu leen a yar mënu leen a éduquer mhm. te yàllaa ngi leen may ay doom yàlla jaarale ko ci ñoom nit a ngi sëy ci kër amu fa doom bëgg ko lool mhm. am budget pour yor ko lool mhm. nga xam ne bu ci amoon téeméer sax dina ko yor ci ay bonnes conditions dina ko dundal dina ko wodd dina ko sàng dina ko jël teg ko ci ay bon conditions te yàlla mayu ko ko yàlla lu mu def rek am na lu tax mu def ko suñu borom kenn du xëccoo ak moom nit sëy na ci kër ñaar fukki at xëy jour rek ëmb dëgg la suñu borom yàlla noonu la ko dogale nit sëy naak nit ay ati ati at ba tàqali kook moom mhm. ku góor ka takkaat soxna am ak moom doon ku jigéen ka sëyi feneen am fa doom dëgg la kon doom yàlla moo koy tudd ci sëy mhm. am na ñoo xamante ni suñu borom dina ni ñaar ñii dinaa leen boole mhm. ñu sëy ba ba yàlla def leneen ci ñoom te du ñu am doom dëgg day am bàjjen léeg-léeg nga gis nit sëyeg nit ndax sëy ni mu dagane noonu la tas dagane léeg-léeg nit sëyeg nit tàggoo ak moom dem sëyaat feneen ki mu sëyal ba tàggoog moom am naak moom njaboot dem sëyaat feneen amu fa doom faju fa lu ne mu daj ko fa te amu fa doom mën naa tàggoo ci sëy boobu ba dellu ca kam jóge woon doog faa amaat doom bari na fi dëgg la boobu yàlla tudd na ni kii nga sëyal ba tàggoog moom di nga delluwaat ci moom moom ngay amalaatal doom mhm. kii nga sëyalaatal nii ginnaaw bi nga tasee doo leen am doom mm-hmm. yàlla noppi na muy destin boo xamante ni suñu borom mu ngi koy bind ci doomu aadama yi am jaam dafay nangu dogal mais tamit des fois góor tamit dafay nekk ci moom la war a doon mm-hmm. mu daal koy jiñ jabaram ba jabar ji su ko waxee sax kaa ñu dem hôpital dëgg la wala kaa ñu dem góor gi mm-hmm. bañ ko déedéet dëgg la yow la moom daal ko jigéen ki rek la koy jiñ léeg-léeg day am mu dal góor mu feebar bañ a faju bu sa jabar waxee nga ne ko dara jatuma yow yaa feebar léeg-léeg it mu dal ko jigéen ki mm-hmm. mu bañ a faju mm-hmm. ba pare xale yu jigéen yi léegi ñi ngi jël méthode yu doy waar dugg ci biir néegu sëy jël ay comprimé di ko naan ne damay planning bëgg gu am doom léegi mm, yooyu tamit nañ ci bàyyi xel surtout ça muy lu bari loo xamante ni nii mm-hmm. xale yu jigéen yi ñu ngi koy def nañ ko arrêté wala dugg ci damaa seet seet bu bees damay planning bëggumaa teel a ëmb léegi damay seetu ba ci kanam damay bañ loolu damay bañ loolu waaw parce que est que yàlla la may doom ba ngay wax doom ji yàlla war a dogal ci yow. Mm. bu ko téyee bàyyi ko mu ñëw. dëgg la yàlla ni damay dogal lii nga ni damay planning waaye yàlla mooy borom bët bu rëy bi mooy kun fa yàkkoon. léeg leen nga planning ëmb ci kaw planning bi. fekk boobu nga xam ne yàlla mooy mër moom dong mooy kun fa yàkkoon. dëgg la xale yu bari ñu ngi koy def. Mm-hmm. bàjjen muy lu doy waar. Mm-hmm. loo xamante ni nii euh, bëri na ci societé bi. Mm-hmm. beneen bi ci topp mooy euh, doom jarul jooy. jarul lëlu di ko xalaat am na ñoo xam ne bëgg doom yàq na seen àdduna dëgg bëgg doom tax na ñu perturbé wu bëgg doom tax na bàjjen ñu koy misère di ko misère di ko misère ba ko war ba stressé am problème mu cœur mm-hmm. ñu delloo si waat seen xel mm-hmm. olof dani mm-hmm. jur mu dee taxuta yara dal jur lu ne léng fajul dara yara dal bàjjen léeg-léeg nga gis nit ku jur doomam dem ba mu dëgër hmm. dem ba nekk magum jëm dem ba war a takk jabar dem ba war a am projet yu bari na ci kanamam suñu borom yàlla jël ko dëgg la dama léeg-léeg nga gis nit koo xamante ni nii day ñaan yàlla doom di ñaan yàlla doom di ñaan yàlla doom ëmb hmm. du teg doom jooju mu ëmb bët dëgg la bari na fi. looy ñaan rek ñaanal yàlla lépp looy ñaan rek na doon mu gën ci yow. billaay léeg-léeg bàjjen nga gis nit koo xamante ni day ñaan lu ci doom di ñaan lu ci doom di ñaan lu ci doom di ñaan lu ci doom doom ja ñëw. indaala laago boo xamante ni wala mu indaale feebar boo xamante ni moom lay nekk sonal ndayam. ba keroog yàlla suñu borom di ko jël loo xam ne gënul ci moom. waaw nit a ngi yootu loo xam ne jëlu gënul ci moom. Mm-hmm. nit loo yootu ñaanal yàlla mu gën ci yow. Mm-hmm. nit loo yootu ñaanal yàlla bu ñëwee mu noppal la. Mm-hmm. moo tax nit ñi war a delloo siwaat seen xel yàlla lu mu def rek am na lu tax lin naan yàlla du juum mm-hmm. du jëlee fi penda jëm jox ko Moussa yàlla du juum mm-hmm. yàlla it du tëj buntu tëj parentère wàccee rido loolu am na loo gis dara rek dara moo ko waral mm-hmm. Ah? am na ñoo xamante ni nii dañuy jur doom di sànni am na ñoo xamante ni dañuy jur doom di rey am na ñoo xamante ni dañuy jur doom duñ ko toppatoo duñ ko lijjanti duñ ko faale enfant de la rue yi ñi ngi ci mbedd yi bari di taxawaalu bari fi loolu amuñu ndey amuñu bàyyi hmm? kon yàlla lu mu def rek dafa am lu tax man damaa gis sama benn euh, tante boo xamante ni nii hmm. fi muy sëy amu fa doom mu jël ko posé ko ci xolom di commissaire waaye it ñi muy sëyal comprendre wuñ ko ci benn côté su yónnee doomu jëm doomu jëm ni ko soo bëggee ko yónni da ngay juri bu yónnee doomu doomu njëkkeem doomu njëkkee bi ni ko li nga yónnee sama doom bari na boo bëggee doom da ngay juri mu doon lu doy lu metti ñu war a xam ni yàlla yooyu dafa ñaaw dafa ñaaw trop mu bari lool ñu war a xam ni yàlla suñu boroom dafa bind te yemalewul mm-hmm. ñu war a xam ni nag euh, kooku li tax amul doom deful yàlla li tax yàlla mayu ko doom dëgg la ñoom ñi am doom defaluñu yàlla li tax yàlla may leen doom mm-hmm. kon ñuy éviter loolu lu baree baree baree baree bari dëgg la nit dina am doom mm-hmm. doom ja ñëw du gën ci ñoom. dëgg la ñu leen kaa fekkee xekk am daka am solo li dem. waaw wala mu bañ koo fekkee bàjjël dafay jur doom mhm. ndeysaan wala mu jàpp jàmbat fu ne mu dem fa ñaandu ji damaa bëgg doom damaa bëgg doom. Mhm. keroog doom ji bi muy jur du ko fekkee waaye tamit grande sœur ba tey rek am na ñoo xamante ne nii. Mhm. dañuy nekk ak seen borom kër. di sëy di muñ di góorgóor du ñu am doom. daal di seen borom kër ñoom aawa takkal beneen jabar ndax nga am doom su jabar jooju ñëwee tey awa ah bi yàlla daal def mu am doom mhm. après problème yi daal di commencé di nga gis sax nit koo xamante ni nii mhm. amul doom kon li nga wax rek mu jël euh, jëkkëram ni ko dama bëgg nga ut soxna mhm. mu am takk ndeer ci kër gi jëkkër jooju takk soxna soxna si ñëw ci kër gi ëmb rek aaw bi ëmb loolu gis naa ko man ba tàyyi nee nañ ëmb day wujje biir day wujje waaw <laughs> dëgg la maanaam waaw day wujjee suñu mag yi ñoo ko daan wax uh-huh. léeg-léeg nit ñëw ci kër ñëw rek doon ñaareel ëmb aaw bi ëmb xol bu rafet ba nga ko defee tamuy dëggu ci yow ndax bàjjen lépp looy wax na doon lu dëggu ci yow tey jii damay jël sama borom kër uh-huh. takkal ko jabar te dëgguwul ci yow naxoo sa borom kër sa bopp ngay na akay dëgg ndaxte lii law ba teq la ci uh-huh. doo xam ni muy toll te wax balla bu xasee bëggee mu jeex damay dégg ñu naan wujju kenn bëgg ko de dëgg la waaye bàjjen mhm. wujje du dara bokk wërsëg rek la <laughs> ndax boo xoolee ni yow programme woo ko yàlla suñu borom a ko programme mhm. boo xoolee ni yow dogaloo yàllaa dogal boo xoolee ni ki ngay sëyal mhm. xamoo woon ni kii suma juddoo damay sëy ak moom yàllaa leen boole dëgg la léeg-léeg nit nekk ci Europe nit nekk Sénégal ñu sëy léeg-léeg nit nekk Dagana nit nekk euh, exemple Mali ñoom ñaan ñu dox ba daje sëy nit sëyee naag nit fu ne nga xam ne yàllaay programme yàllaay dogal nit génn naa koo xamante ni nii ak moom fukki at ak juróomi at yàlla ni doo leen sëy kooku kenn mënu ci dara yàlla dogalul boobu sëy nee nañ léeg-léeg ka ngay mbaraan mooy sa borom kër lu ci bari doom yooyu di ci judd jooyoon nañ yàlla nee na ala kulli aal doom yooyu dañ ci judd mënoo ci dara kon yàlla noppi na mm-hmm. mu doon loo xamante ni nii euh, suñ société bi bari na ci lool lool bàjjen Mm-hmm. sëy nga amoo doom rek ñu ne dafa ay gaaf. surtout goro yi wala ñu ne dafa yara dal. surtout goro yi wala jëkkër yi. muy doon lu doy waar goro yi dañuy gaaw naan la damaa bëgg turandoo. dëgg la mel ne force te ne yàlla mooy maye dara. dëgg la mm-hmm. jéeg sëy na ci kër di am ay doom yu jigéen rek ñu naan amati jigéen de jigéen rek lay indi. mais comme si que ñoom ñooy maye ah. dëgg la nit sëy na ci kër di am ay góor rek ñu naan moom da ay góor rek lay indi. Mm-hmm. lan lañ bëgg jigéen ak góor yépp a ñaari loxo mooy takk tubéy ñaari loxoy takk sër léeg-léeg nit jur ay jigéeni kese ñu fajal ko gàcce feral ko ay rongoñam ñaata jigéen a fi nekk fii ne ci jiite ko ñaata jigéen fi nekk di teral seeni ndey ak seeni baay ci seeni jom ñaata jigéen a fi nekk yor seen société yilif ay góor du jeex kon dañ ni góor baax na jigéen baax na li may wax nee naa bàjjen fajar boo yeewoo jigéen ñi rek ngay fekk ci tali bi li ci ëpp mhm. ñi ngay dem marché jën mhm. ñi ya ngay jaay ñi ya nga ca bureau ya ñi ya nga ca kër ga toog jël seeni taabal teg ci buntu kër ga boole kook yor liggéeyu kër gi di daw rek di daw rek kon nag defe naa ni lu góor man jigéen na ko ko dàq gaa nag ñoom ñooy suñuy kilifa ñoom la yàlla jiital ñoom ñooñu ak góor nee nañ góor lu mu tuuti tuuti tuuti tuuti moo lay jiite mooy sa kilifa dëgg la yàllaa leen jox cër boobu te nangul nañ leen ko waaye ki nga xamante ni mooy jigéen di sonn di daw moom it nangul ko li ko yàlla jox léeg-léeg nga gis nit am benn doom kese kese kese kese kese mu ñëw tëjum réew fajal ko gàcce bu mu amoon. billaay dëgg la taral ko ba taralaale ñu ci bokkul. dëgg la léeg-léeg nga gis nit am doom bu jigéen kese doom bu jigéen boobu ñëw fajal ko ay rongañam. kon góor baax na jigéen baax na. dëgg la dafa dëgg mhm. macha allah wax ji am na solo lool lool lool kon ñu daal di gën a fonkaat jigéen ñi rek. Mhm. daal di bañ di leen yuuxu di leen toroxal takk nga soxna ñëw na ci kër mhm. même su dee quinze ans mu muñal xam ne yàlla ah biñ koy muur liñ naan jigéen biñ koy muur xelam matul jàppale ko ndeysaan mhm. mais ñoom da ngay ñëw sëy trois mois quatre mois soo ëmbul gore yi commencé di gaaruwaale mhm. sa jëkkër commencé damay takki beneen jabar maa ba gis doom comme si que doom force la ñu bari xamuñu ci dara raison pour laquelle ma laaj daba est-ce que xam nañ ne doom sëy ci la wala nekku ci parce que yéen yi ëpp mbaaj leen commencement émission bi nee naa la. yéen dafa ëpp kado la ci sëy. wax nga ma ko xaale ko ci sëy. Mhm. man gis naa sama benn tante boo xamante ni nii. Mhm. moom dafa ay jigéen rek lay am. ndeysaan ay jigéen rek lay am ay jigéen rek lay am jëkkëram takk ñaareel pour am doom bu góor. ñaareel ba ah. ñëw moom du jur ay jigéen rek. maanaam yàlla dafa programmé. dëgg la bu programmé day ko. mais mais doom bu jigéen sax wërsëg la ci papaam. dëgg la ñoom ñu bari xamuñu loolu. tey soo fi sëyee doom bu ñëw li tax yàlla indi ko jaarale ko ci yow am na lu tax. dëgg la. tey jii. Mhm. bàjjan programme wul ni damay damay dem kii mooy nekk sama yaay. Mhm. nee nañ ku doon bind sa bopp doo juum. bi lay dëgg la dangay ngay rëddal sa bopp mel ni la neex. kay am na ñoo xamante ni nii. Mhm. am nañ yaay yoo xamante ni nii sax dañuy romb beneen yaay ni ay waay suma amoon yaay bii. kon yàlla mooy jaarale doom fi ko neex. dëgg la jaarale doom fi ko saf. léeg-léeg nga dox. ci mbedd gis koo xamante ne xelam matul nga gis kook doom mhm. doom jooju da nga koy yërëm waaye yàlla suñu borom ci moom la ko jaarale mhm. ala kuliyaal ki di kooku mooy ndeyam mhm. ñun dafa mel ne dañuy fàtte yàlla parce que des fois doom dafay juddu la mu nekk jigéen ñu naan acam di xas ko góor ka wallaahi comme si que ñoom ñooy dogal wala seen jëkkër yi ñooy dogal yàlla li nga wax léegi léegi rek mhm. yàlla mooy kun moom mooy xool lu ko neex mu def ko mais léegi nit ñi xameetuñ ko noonu mhm. da gis benn samba daal di takk soxnaam daal di am doomu jigéen xaritam yi ñëw mhm. góor yooyu ñëpp naan lan dafa yembare di sàmba kon amoo doom bu góor dafa yembare di mais li daba wax léegi léegi jigéen baax na góor baax na dëgg la mais sàmba moom mënoon naa dund ba dee te du am doom wallaay dëgg la kon su ko yàlla mayee na sant yàlla xamul doomu jigéen ji ëllëg lan la koy jural waaye accam dafa yembare kon yow jigéen nga fi indi wallaay dëgg la bàjjen nañ arrêté loolu la ko waxee rek góor baax na jigéen baax Mm-hmm. léeg-léeg nit am fukki doom te benn du ci baax dëgg la yàlla rek ay baaxal mm-hmm. léeg-léeg nit du am dara yàlla teral ko mm-hmm. léeg-léeg nit du am benn doom ay doomi jàmbur ñëw def ko yaay ba noppi di ko teral bàjjen ñi fi amul doom ñoo fi gën a jaboot man gis naa koo xam ne amul doom waaye dañ ko may ay doom doom yooyu tey jël ko teral ko tarbiyu ko defal ko loo xamante ni nii est-ce que bu amoon doom ju mu jur ci biiram kooku dina ko ko defal. moo tax ni la. Ah, moo programme dëgg la. Mm-hmm. beneen bi ci topp mooy nit ni ma ko waxee woon di nga bari doom lool. Mm-hmm. te benn du la ci fajal dara. benn du la ci jëndal tàngal. loolu am na. bari na fi xanaa dañoo fàtte yàlla suñu boroom. Mm-hmm. léeg-léeg nit am doom doom jooju di la jooyloo. léeg-léeg nit am doom doom jooju. dugal la foo xamante ne yaakaaroo woon ni fii di fi dugg te dooma la fay dugal muy lu yéeme yàlla kenn du xëccoog moom bàjjen ba ci loo xamante ni nii sax tey jii am na ñoo xamante ni doom jaral na leen lu nekk léeg-léeg nga dem ci sëriñ damay ñaanlu pour am doom sëriñ ba ni la kaay ñun ñaar buñ seqee nangam nga am soo demee seq kook sa jëkkër danga am doom am na ñoo xamante ni dañ leen koy jaral da koy jaral dëgg la muy lu doy waar dëgg la ñu bàyyi benn affaire tamit ci ah, bu baax a baax dëgg la ji góor ñi nga xamante ne nii dañuy takk seen aawo mhm. takk ñaar ba ñett ba ñeent amuñu doom man gis naa loolu vrai dëgg la faseendoo ñoom ñëpp waaw dem takkiwaat dëgg la pour lan ñoom xanaa léegi bëggatuñu seen jabari wala ay doom lañ bëgg bàjjen am na ñoo xamante ni tey jii da ngay dem ci sëriñ mhm. di faju ji pour wasin am doom di faju di faju di faju di faju di faju di wër di faju doo toog am na ñoo xamante ni faju pour am doom yàq na seen àdduna ndeysaan léeg-léeg mën ngaa dem dal ci koo xamante ne mu jox la garab fekk garab googu naanuwul billaay dëgg la léeg-léeg garab googu nga jël ko naan ko mu indil la beneen musiba jural la beneen feebar boo xamante ne doo xam foo koy waxee sax mun naa am lu mu testé dëgg la foo yi parce que ñi nekk sëriñ vrai ba tey ñi la mais foo bi mun na teste comme li mm-hmm. daba wax jox la nga naan loo xamante ne nii naanuwul non du génnaat dëgg la <laughs> dëgg la du génnaat di la ak a leer daf leen attention bu baax bàjjan jamono mm-hmm. dégg naa koo xamante ni nii mm-hmm. day tukki moom mu gëj a am ak doom jëkkër ji am na doom de mais nee na dafa gëj a bu jëkkër ji ñibbisee dafa bëgg a ëmb parce que jëkkër ji ñëw na ñetti yoon voyage dem ñëw ëmbul moom dafa bëgg a ëmb di dem wax ko benn maaraam kooku daa di jël uh, ay reen jox ko ni ko del naan bu ñëwee rek di nga ëmb reen yooyu mu naan maar day misi bi mu ñëwee hôpital la ko fekk malheureusement loolu daf ko mujjee faat lan moo ko fi jar bàjjen ana yàlla jàpp julli ñaan yàlla suñu borom dara jël ah. ko ndax foo tib yi li ma naan foo sëriñ yi foo tib parce que sëriñ yi baax wax naa ko léegi-léegi dama koy répété waat mhm. ñi ngi baax ba tey mais am na sëriñ yoo xam ne nekkuñu ay sëriñ da ngay tëxir rek daa ji dem ne la lay laa damaa bëggoon a am doom sëy naa fukki at mhm. yëkkati sa juróom fukki junni li ci gën a bizarre mooy weexal bu bari nañ lay laaj waaw bu bari nañuy laaj ah nga daal di naan jamono ji de ku mu neex xoolal tabakaa joxe léegi jamono ji ku mu teg sa kurusu téeméeri per mhm. wala sa kurusu ñetti téeméeri per ni sëriñ laa ku ñëw nga ne ko ku ñuul ki ku xees ki ku gàtt ki mhm. jox ko ay tettal kër ga nga dëkk mënoo faa ñàkk ñuul kër ga nga dëkk mënoo faa ñàkk nit ku xees mhm. ñu jox la ay tettal nga ñëw siple kenn def ko noonu kii moo tax ëmb ma wala kii moo tax mënumaa am doom wala ñu ne dëkk nga koo xamante ne takk da gàllaaj goo xam ne tànk mi ngi koy takk doo fa jur bilaay dëgg la nga ñëw tox toxal sa boroom kër ni ko nañ uti appartement jaxase rek tant que maa ngi dëkk ci kër gi wala ma dëkk ceeg sa yaay wala ma dëkk feeg samay njëkke du ma osin du ma am doom sëriñ bi nee na ma nàngam sa jëkkër bu naïve déggal la dëgg la su la déggalee mm-hmm. yaa ngi dégg daa di ñëw ci yaayam man kat yaay damaa bëgg uti ji fu ma nekk maag sama jabar mm-hmm. lan moo tax du tax nga yóbbu sa jabar doom di ma fi ba parce que daa am ku nekk ci kër gi yor loo xamante ni tant que mi ngi fekk sama jabar sama jabar fi am doom mm-hmm. est-ce que xam nga sa yaay jaaxle. Mhm. nga ne ca teg ko stress teg ko coono. génn ak sa jabar dem fami ba tas coow la jóg. fekk dëgg la bàjjen li ma lay wax ni lu leer la bari comme li nga wax dafay dafay dafay dafay bari. ndeysaan dafay bari. bari na fi lool lool lool te dama cee am yu ma leer yoo xamante ni nii. nit da koy dund ma di ci teg sama bët. dëgg la. léeg-léeg sax di nga dema dema dem ba tam sa wujju peccargo ni moo la teree am doom. Ah, am na am na. dëgg la léeg-léeg di nga dema dema dem ba tam. koo xamante ni nii euh, ca koñ ba sax lay ne nga ni man su ma ko rombee rek avorté naa léeg-léeg bëgg am doom tax ngay takk biir ñëw ni sa jëkkër dama ëmb ah. fekk ëmboo dara jotu la nga ñëw ni ko damaa ëmb te xamoo ni loolu boo ko defee mooy takk biir ku oyof bopp ca kër ga mën nga koo lor ñu bëri léegi ñu ngi koy def xale yu jigéen ñi ñëw ni sa jëkkër damaa ëmb te dara dalu la dëgg la bari dara dalaa dalul sax non li ngay wax réalité la ah? nga nekk si société bi li nga société bi dëgg la ba tax na ku ko doon def na ko bàyyi parce que loolu tamit dafa ñaaw. dafa bii sa jëkkër damaa ëmb. damaa ëmb te ëmboo. léegi loolu ban plaisir lañ xale yu góor yi ci nekk Europe nag. ma partie bi ñoo ci gën a bëri ñëw. sa jabar woo la ëmb. xaalis dem komplo toog benn benn benn benn benn sage damaa ëmb ah ëmb nga dawal quelque temps tas sa yaakaaru borom kër woo ko ni ko oh. chéri man kat damaa mujj avorté ah. mais kooku nekku fi lu mu ci xam ngay teg say dil di def yu doy waar yoo xamante ni nii mooy loolu na ko nit ñi arrêté daba keroog nee nga wàllu yu bari ñu ngi ci kaw bëgg yaaju leen jur waaw waaye gisuñu ko déedéet waaye tamit dinañ ko yéex a gis xam nga fan laa ko teg mm-hmm. parce que xale jigéen yi sëy surtout jamono ji ñu toll dañuy triant di kàcc dëgg la ñu baal ma di nax seen jëkkër yi wallaay dëgg la ci xaalis a leer ba pare nga ne yaa ngi ci buum sëy dëgg la fas yéene am ay doom mm-hmm. doom yooyu tey ëllëg suñu màggee lu ñuy def dëgg la ñu bëri ñi ngi noonoog tey ñu bokkal nday ak baay mm-hmm. kii ñoo bokk nday ak baay yàlla may na ko ay doom man awma doom ki am doom danga koy jël def ko noonu su la waxee du la wax loo dégg bu waxtaanee ak yow doo ko dégg lu mu la wax rek nga ne doom yi mu am taman aw ma doom dafa may ñaawal wala nga ne doom yi mu am taman aw ma doom daf maa iñaane wala nga doom yi mu am taman aw ma doom daf may jaay ni moo am doom jël loolu gaaw a gaaw a nerve luñ la wax nga gis sa bopp mm-hmm. lu tax aw ma doom luñ ma wax rek damay gaaw a gis sa bopp àdduna du noonu mm-hmm. yàlla li tax mayu la doom moo ko xam nitan ngi xëcc loo xam ne gënul ci moom ah yaa ngi ñaan doom di ci ñaan lu guddeeg bëccëg di ci faju guddeeg bëccëg doom jooju bu ñëwee est que di nga ko fekkee est-ce que doom jooju dina dundandoog yow mhm. est-ce que doom jooju dina màggandoog yow est-ce que doom jooju yéen ñaar war ngeen a mën a bokk jotaay mhm. yàlla suñu borom téye boppam nga ni déedéet mhm. damay xëccoog moom damay dem ñaan am doom damay dem ñaan ñaan lu insisté nag ni doo bàyyi yàlla bu nee waaw nga ni déet sa bos mooy bàyyi de billaay dëgg la ndax yàlla rek tey kun moo la sàkk mooy kun fayeeku na mhm. am na solo lool thème bi allah. Mhm. li may faral di wax rek nee naa la fii lay xewee saa su nekk seen émission jël ma ciy ànd ak sama mag ju baax ji kar mhm. kenn tuutaluñu kenn mais dañoo bëgg képp koo xamante ne rek seetaan nga émission bi di nga ne ah man kat dinaa bàyyi lii su ma doon góor amaguma doom du ma ko ci sama jabar muy yow muy sa jabar yéen ñaar ñëpp war dem ku nekk xool sa bopp wallaay bu ne sama jabar kase la sa jabar amul doom bu ko xas tamit ñu bàyyi sa jabar jur jigéen non booy bi dafa dafa weere ay dafa nooy. léeg-léeg nga gis ci ci ci ci nouveau marié yi nit sëy takk jabar moo xale ba ñu am 6 mois rek nga ne tax boob ba léegi ëmboo doo faju am na man non man je me demande est dëgg la dañ naan la ëmbëgoo de. am nga fi 6 mois te ëmbëgoo ndax doo faju. mbëggeel amul parce que doom la ñuy wër. waaw doom rek. am na ñoo xamante ni doom rek doom. yàlla mooy maye dama yaa ngi sóoraale sa xarit ba. sa xarit ba bokkul ci sëy bi. yaa ngi sóoraale dëkkandoo yi. yaa ngi sóoraale sa ex gel ba nga amoon. naan diw takk na jabar da wàcc ma fi est ce que amagum nañ doom. nit ku nekk dundal sa dund. bul sóoraale kenn. yàlla noppi na ba mu la sàkkee. boole laa ki nga xamante ni mooy sa soxna. am na yoo xamante ni bàmmeeru biir la am na loo xamante ni sutura la am na loo xamante ni sa biir néeg la sa vie privée la yaag sa borom kër. jamono ji changé na kon léegi parce que li nga bu njëkk. dëgg la yaay yi bu njëkk ak suñu maam yi. mais macha allah. mais bàjjen sëy bu njëkk ba sonn daaw sa wax am naa doom wala aw ma doom. wallaay mais léegi sëy daal daba man xaw ma. doy na waa moddu la xaw ma. dëgg la heure ménage gi lañ bëgg. mais moddu moddu lañ ko jàppee de. moddu la moddu la. ku def sa heure ménage jël sa kol def ko nii yaarale ko ci sa bakkan uh-huh. daal di toog sa digg lalu yaay ñu defal la. Euh, madame diw madame diw madame nangam madame nangam. Uh-huh. boo ci tegee weer tas sëb sëy. bëgg a làmbi feneen. mag ñi daaw ñu ko def. mag ñi dañ daan sëy ba dee. Uh-huh. sëy nag ak tas ñu ànd. dëgg la benn mënu cee dem bàyyi moromam. yàlla nee na ni ma ko daganale. Uh-huh. noonu laa ko bañee muy tas. mais nag ay la yéwén mënta ñàkk. léeg-léeg nit da ngay bëgg. li nga bëgg suñu borom ni la déedéet. damay jox ki jox ki mm-hmm. ndax jaam suñu borom nee na lu ma lu ma bind rek doomu aadama la ci gën a bëgg gën ko cee fonk mm-hmm. kon sëy ak loolu ñoo ànd mais ki nga xamante ni nii yow yaay aji kiy dem ay la yowén mën ta ñàkk sëyal ba xam ni sëy nga mm-hmm. góorgóorlu ba nga xam ne góorlu nga doom nag kon ni ma koy waxee rek ci sëy ñu ciy bàyyi xel doom du force ci sëy dëgg la amoo doom bénéfice la ci dem nga faju ñu ne la dara terewulaa am doom mhm. xaaral yàlla suñu boroom mhm. say problème mhm. say ovule xool nañ ko gisuñu dara la teree am doom mais demal toog xaar yàlla des fois tamit sëy bi day tiit dëgg la ndax sëy bi ci kër gi uh-huh. amu fa sax deux mois daal ne allo yaay man ko damaa tiit dem naa hôpital waaye am léegi ëmbuma dara daluma parce que xam nañ ne moom si boppam autant pour moi xam nañ ne su gaawul faju ji wala gaaw ëmbul waa kër gi dañ koy gaafal ndax loolu moom surtout Sénégal gi dëgg la da cee raw daba bëri na fi bàjjen looloo toj kër yi de. Sénégal da cee raw franchement. léeg-léeg nag am na goro yu baax léeg-léeg am na goro yoo xam ne duñ la mm. comprendre. dama doy waar léeg-léeg nga am ñu baax ñoo xamante ne nii dañ naan lu jot yomb. lu jot rek yomb man gis naa sama benn nijaay bu seeg jabaram ñaar fukki at daaw la jabar ji am doom. Mm-hmm. kon xam nga lu jot yomb. Mm-hmm. am na ñoo xamante ne nii dañ lay forcer. dem na ba ci sëy yu bari di tas. Mm-hmm. am na ñu ci seeni jabar ndax ñàkk am doom. sëy naag diw ñaata at am na doom tàggoo nga ak mu amul doom danga koy fase mënumaa am ak yow doom fase naa la mhm. pour lan doom ji taxul woon nga takku ko mhm. programme woo leen ko woon ci sëy bi mhm. yàlla moo ko ciy maye rek bu ci amul téyel sa jabar te yàlla rek tax dëgg yàlla li tax mu boole leen moom xam na ko li tax yéen ñaar ngeen nekk ay way dencante mhm. am na lu mu dëxañ ci biir loo xamante ne yow xamoo ko ku jigéen ki xamoo ko billaay ak ay dëgg su ñëwee rek nga kontaan waaye ah. soo yàkkamte yàqal sa bopp waaw dëgg la ku yàkkamti doo fekkee dara nee nañ sonn mun taayi muñ bëgg a dee muñ ku muñ muñ waaye sonn daw taayi daw bëgg dee daw ku daw rek da ngay ñaaw ku daw doo fekk dara bàjjan xam nga ne gis naa koo xam ne sëy na fukki at ak juróom mhm. ak jëkkëram te doom dëgg la ci fukki juróom bi ci la amee doom te découragé wul déedéet jëkkër ja découragé wul goro ya découragé wul am na mais loolu la ñëpp ànd ci ko muñal dëgg la toujours viendra di nga reetaan wallaay dëgg la noonu amee wallaay bàjjan dëgg la bari na fi bari na fi am na ñoo xamante ni nii sëy nañ ci kër ay ati ati ati at ba yàlla dogal seeni borom kër génn àdduna mhm. ñu dem sëyi feneen am fa doom am na am na ñoo xamante ni sëy nañoo ak seeni jabar ay ati ati ati at hmm. ba yàlla dogal seen jabar jooju làqu ñu hmm. takk beneen jabar am ak moom doom hmm. loolu lépp ci programmation bi yàlla def la tey jii nit mi ngi sëy ak nit di sëy ak moom di sëy ak moom di sëy ak moom di sëy ak moom ba ñu sëy trente ans am doom am na fi am na fi yàlla dañu woon da ngeen di def distance boobu ma doog leen a may takk ndeer dëgg la dawa ah dëgg la waaye nag loo muñu rek doo ko fa xaar mhm. ñu wàññi sëriñ si wàññi faju bu bari bi surtout sëriñ si ma doom damay dem ci sëriñ si wala aw ma doom nga dem ci médecin mu opéré la fukk yoon ak juróom ñett nga naan kyste bi nekk ci sama biir bi moo ma teree am doom gis nga fii ku bëgg ñu gis ci sa biir kyste boo demee dañ ko fay gis de bàjj nañ bàyyi opération bu bari bi dëgg yi mi ngi ci biir bi dama koy opérer. Mhm. pour am doom soo ko opérer am doom. ah nga dem opérer ko. Mhm. yàlla ni paree gu ma de pour jox la demal nga toog. dëgg la pour lan faju bu bari bi dem naa ci sëriñ diw jox na ma garab ma naan. dem naa ci sëriñ diw jox na ma garab ma naan. Mhm. dem naa ci sëriñ diw jox na ma garab ma naan góor ñi dama yokk sama doole. dem naa jëri reen xóoyal naa ko naan. pour gën a yëg sama bopp pour ma gën a mën a am doom. Ah? wala tey jii ah damay programme pour mën a am doom bu góor nii laay sëyeeg sama jabar doom bu góor lii moo koy joxe dara joxewu ko yàllaa ko joxe macha allah da ngay tëdd ak sa jabar tëdd bu metti wala nga def ko loo xamante ni jaru ko fi mm-hmm. wala nga dema dema dema dema dem ba am na ñoo xamante ni sax dañuy sëyeeg seen jabar dañuy lucide mm-hmm. pour naan damay tëddeeg sama jabar position bii pour am moom doom ji dëgg la mais yàlla moo joxe doom position joxewu ko bilaay dëgg la ah par jour joxewu ko. faaw ñuy xoolaat seen bopp d'abord. ah mi ngi noonu bàjjen. faaw ñuy xoolaat seen bopp bu baax a baax. mu doon yéeme yeddaat seen bopp grande sœur Daba li mu wax am na solo lool mooy sëriñ si nañ leen wàññi parce que yow sax mun nga dem ci sëriñ si jox loo xamante ne nii dootoo ci doom ba faaw faaw faaw faaw nit da te teey dara dàqul uh, julli waaye teg ci ñaari rakka daal di julli ci Seydina Muhammad daal di ñaan yàlla incha allahu rabbi yaa dina la ko may amul ñaan yàlla gu yàlla di rejeté daba dëgg la amul ñaan yàlla gu yàlla rejeté dëgg la xoolaat seen bopp mhm. suñu bopp sax laay wax mhm. daal di teey daal di dal niw sëy si na sa kër yow goro bi bul ko gaafal goro yu góor yi tamit des fois dañ lay gaafal njëkk yi nga xam ne yow mi un jour viendra da ngay dem sëy ji mhm. sa kër yaay sa kër papa du kër ñu daal di jàppalante daba bu baax a baax émission bi. neex na lool. <laughs> suñu waxtu danoo dem. maa jën. macha mhm. allah am na solo. waaw am na solo. Euh, liñ naan euh, jur mu dee. Mhm. taxut a yara dal. jur lu ne léegi fajul dara. Mhm. mooy yara dal. dëgg la ndeysaan ndongoloo yàlla na ko yàlla yërëm. mu way ko ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen. nga jur lu ne léegi ni sama doom la. dafa jalu la gàcce. faralul say rongoñ. dalay yokku chaque jour mu dugal la ci mbuxum mhm. chaque jour mu dugal la ci musiba mhm. chaque jour maanaam yow daal co bànneexu àdduna doo ko am dëgg doom ji moom daa wàcc rek pour ñëw di la mbugal mhm. jooju doom lan nga koy doyee toog am doom moo ko gën kon ma bëgg nit ñi ñu bàyyi ci xel léeg-léeg nit am doom du ko gënal léeg-léeg nit am doom toog bañ a am doom moo koy gënal dina wéet ci rukkus mën a kanam jooy ni su ma yëgoon yàlla dooma may doom ji wala mu ne la yàlla sama doom ji yàlla nga ko jël day am ndax coono yim lay teg ak fitna yim lay teg ak ñaaw téef yi mu nekkee te ku ko tudd tudd la ndax nday dafa for ci doom wayjur dafa for ci doom nee naa leen a abaay saanam doo leen ko dégg fenn anday saanam rek ngeen di dégg su baaxee doomi ñëpp waaye bu bonee yow mii ndey ja yow leen koy jalla kon ñu bàyyiwaat ci xel bu baax a baax a baax a baax di ñaan Sénégal yàlla na fi yàlla wàccee jàmm di ñaan sutura ak xéewal di ñaanal adduna war nga këpp di ñaanal borom kër gi yàlla na yàlla guddal fanam di nuyu waari ju bu baax di nuyu nag junior bi nga xamante ni nii suñu frère la suñu xarit la di nuyee seen Mbuub ak staf kër gi yëpp ñu ngi leen di nuyu mm-hmm. di nuyu waat bàjjen sama rakk ji nga xamante ni wéetuma ci plateau bi benn yoon ngir moom xale bu baax bu loxoom set bàjjen ñuy tàggatoo tàggatoo bu dul jeex. macha allah kontaan nañ trop tey nag damay dem ba pare dafay fekk sama mag ji. Mhm. madame Sakho daal koy bu baax loolu dañu suivre chaque jour ma ana daba ana daba nday faatu ah. yàlla na sa jàmm yàgg am mhm. yar lool tey bëgg ay rakam bëgg ay magam. Mhm. maag moom comme ay seex. ndeysaan daf ma bëgg torop torop macha allah. daba tamit mi ngi kontaan ci ngi lay nuyu. nuyu naa ko bu baax la yàlla defal jàmm di nuyu monsieur Sakho. <laughs> macha allah ne li daba naan xale su loo xam ne c'était nee na léegi man maa ko. maa ko mag léegi maay magam ndeysaan <laughs> macha allah kontaan nañ trop mm-hmm. kon ñu doon jox euh, rendez-vous mm-hmm. ba bañeen yoon incha allah rabbi fii lay xewee rek lépp loo xam ne dañ ko wax pour juum rek xam leen ne dañoo juum ni ko Ami Collé Mbaye di waxee nit matul mm-hmm. dañ fee nekk rek euh, pour waxtaan ak yéen pour ñi nga xamante ni dañoo jàdd yoon ñu jubbanti leen macha allah la prochaine fois